delswat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci émission bay jaar ci daara ji ci waxtu wi mu di waxtaanu fajar ngeen di ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñi àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaawu jàllu mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buut ba ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko tàllal loxo di ko ñaan mu may ñu candaluk jàmm ndax moo ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal ya ma leen ma dottil leen ko yokkal leen ko bi ngeen ko yëg waaye nag ah mu teg ci beneen wet bi mooy beneen aaya bi wala in kafartum inna adabi la shadid bu dee da ngeen di weddi sama xéewal yama leen di xéewalal xam leen ne nag ah li fi nekk mooy sama duma yi may duma ñay weddi sama xéewal yi duma woowu lu métti la yal nañu yàlla musal ci ay dumam yal nañu yàlla ubbil buntu xéewalam amin ya rabbal alamin yi réew mi fm 97.5 ñoo ngi àndoon nag yéen suñu thème bi nga xamante ne mooy vacances ba ñu nekkee ñu wara a wamat xale yi tu tànk yi ndénkaane ba ñu yàlla dénk ñu war jël xale yóbbuleen ci daara vacances yi ci daara alquran yi ñu war a manqué ci xéewal yooyu nu ñu yàlla xéewalal ay yiw yu bari bari bari bari bari ba tax na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon wax ci maana xadis keroog bañ doon waxtaan ak yéen mu di xadis bu am solo woo xamante ne suñ yaay Aisha radiyallahu anha moo ñu ko génnel neena na sango bi neena na sallallahu alayhi wa amul kenn ci samay xeet ka yalla dénk ñaari doom yu jigéen walla ñetti doom yu jigéen ñu bokk nekk ay sœur wala moo xam ñaari frère lañu su ko defee nga rafetal seen njarin nga rafetal seen nekkin nga jekkal seen melokaan suñ yaay Aysa nee na <coughs> bi sallallahu alayhi gannaaw si da si teg ne lu dul ñoom gone yooyu nga rafetal seen jikko nga rafetal seen nekkin ñooñu keroog bés pénc yàlla da leen di jox favor ñu doon kiir laay bi nga xamante ne moo lay taxa bañ a ci mbugalu yàlla yow paaraam bi moo ne yow parent bi bu fekkente ne danga bëgg mucc ci la nga xamante ne mooy mbugalu yàlla julli ba ngay julli baax na lool naam woor ya ngay woor baax nañu lool naam waaye am na benn yoon raccourci bu dee mënees nañ kaa waxee ni yoon bu gaaw boo xamante ne moo lay tax a àggaloo ci xéewalu yàlla ndegem xam nga ko ba tax na nit ñu jukkil leen ci émission waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi ngeen di ko wittalanteeg ñun fii ci Rewmi FM 97.5 moo ne bi mooy an ummil muminin aishata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laysa ahadun min ummati yacuudu thalaasa banaatin aw thalaasa axawaatin fa yuxsinu ilayhinna illaa kunna lahu sitran min annaar rawahu axrajahu albani fi saxiix aljaami mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot suñu yaay di ummul muminin di kenn si njabootu yonent yaay Aïcha radiyallahu anha moo ñu baaxee ñu naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu amul kenn ci sama xeet ñi koo xamante ne yàlla tàggatal na ko may na ko ñetti doom yu jigéen wala ñetti doom yu góor mu rafetal seen jikko rafetal sen nekkin ba ñu doon ñu am kersa ba ñu doon ñu am tawxiid ñu wéetal yàlla seen melokaan lambog kersa ba islaam jàngale seen dim ak dikk melokaanu islam ñuy comporté woo comportement ba yàlla gërëm te yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam su ñëwee Aysa nee na sang bi dee dane képp ku yar sa njaboot yarin bi ni xamal ne keroog bés njaboot yooyu nga yar yarinu islaam ñooñu ñooy doon kiir laay ba lay aar ci safara si yàlla safara su yàlla bi di jahannam bokk na ci la tax nit ki du fa tàbbi walla bokk na la tax nit ki di sakkul boppam kiirlaay bàyyi dox digganteem ak safara su jahannam yonent bi neena na képp ku yàlla may takkandeer ay njaboot nga yar leen rafetal seen yarin nga jàngal leen alqur'aan lu mel ni waxtu wu ñu nekk ni ñu ci jamonoy vacances jël sa doom yóbbu ko ci daara vacances yi mu dem jàng alqur'aan mu jàng xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi neena nga rafetal jikkoom ne ko nii lañuy ñuy waxee mag ñi la luqmaan waxoon doomam wala tusaciru haddaka linnaas wala tamshi fil ardi marha bul yuuxu booy wax nit ñi te bul nekk ci kaw suuf si di nganda ngandalu ngay conseil sa doom conseil wi ni yu baax yi booy dugg danga naan assalaamu aleykum booy romb danga naan assalaamu aleykum jigéen gi day sol jot day sol lu fat melokaan wala taar yàlla yàlla mooñaale dee ko sàmm dee ko nëbb ak yi nga jàngal ko sa walla nga yóbbu sa doom bi fañ koy jànge fañuy ñuy jikkoo jikko wi ni bi neena na képp ku taxawee nii en tant que parent ëllëg bés pénc ñooñu nga yar yarinu islaam roofu kersa roof leen jom roof leen fegu ak bañ gàcce ak xëytu jikko yu baax yi xatta suñu jikko maam yu baax yi fi nekkoon ñuy musuuru daawuñu génnee bopp neen dañuy musóoru seen musóoru bi da jekk lool macha allah boole si kol ba nga xamante ne dañ koy laxas seen baat ngir seen baat bañ a feeñ ak colin bi ni mel képp ku yaree sa doom ni yenentu bi nee na ñooñu ñooy dox sa diggante ak safara ndax ñooñu ñooy doon sa kiirlaay ba tax na mbokk yi ñu ngi ci waxtu vacances képp koo xamante ni jël nga sa doom yóbbu nga ko ci daara fi nga xamante ni fa la ñuy jàngee alquran comme nañ leen ko doon junjale keroog yow mi yóbbu sa doom ci daara alquraan mu war a mën a jàng fukki saar yu mujj yi waxoon nañ leen ne bu tàmbalee ci min suratul fiil ñëwoon nañ ak yéen bi suratul kawsar ñëw ak nañ bi suratul maun mooy ñetti saari suratul fiil mooy alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ñaareelu saar bi mooy suuratul kawthar mooy suuratul qurays ngeen jéggal ma suuratul moy mooy ñaareelu saar bi mooy li ilaafi quraysh ñetteelu saar bi keroog ñëwoon nañu ki yéen ci saar boobu mooy suuratul maun di araayta alladi yukadibu bi diin tey bi iznillahi subhaanahu wa taala xale boobu dem ci daara vacances fa mu war a jànge alquran tey ñu ngi namm fa moom mu yëkkatil ñu bàyyi xel jàngal ñu ñenteelu saar bi te mooy suuratul kawsar fa bur yàlla tabaraka wa di baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa keroog mu tombeek naxar bu mag ba ko yàlla teg nattu moo tax bur yàlla nekkoo ko gannaaw yéefaru màkka yi di ko caw seeni làmmiñ di ko gémmiñu di ko ne dangay aagayaf danga ay gaaf danga doon ku doon ku ay gaaf or ko yonentu bi nekkutoon ku ay gaaf dafa fekk ne rek yàlla moo ko doon nattu buur bi jalla wa di xool yonentam bi nu muy comporté wo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 inna shaani'aka huwal abtar inna aataynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar mbokk yi keroog lii la buur yàlla tabaaraka wa taala dalalee xolu jaamam di yonentum keroog ba ko yiifaru makk yi di ko gémmiñu ni ko danga doon ko ay gaaf <clears throat> yàlla daal ko jox saar bi mu doon maanaa lu ëmb ci lu kenn du mën a waxtaane ci waxtu bu gàtt waaye ba léegi bokk na ci la yàlla suñu borom tabaaraka wa taala xolu yonent bi sallallahu alayhi wa ci saar bi mu ne ko dexu kawsar dex ba ñu naan kawsar te mu nekk fa man yàlla dinaa la ko réserver keroog bés pénc laa la jox yàgg say xeet moo ne dex bi da dex boo xamante ne képp ku ci naan dootoo mar ilal abad te keroog bés pénc bés la bi nga xamante ne ndox du fa ne bésu taxawaay bu tar boobu amul kenn ku ñuy jox butéyu ndox amul kenn kuy àndaale ndox ndax taraayu bés boobu amul kenn kuy xalaat naan du tey am na ñuy mar mar woo xamante ne kenn na munu natt ci mitit mar bu métti la nit ñi di mar keroog kon képp koo xamante ne teg nga sa tànk ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow di am accès ngir jot ci dexu kawsar yooyu xadis ba kay tegtal ni yàlla mooy jox yonent bi dexu kawsar yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ñu ne si maana xadis ne ñu bés penc de dina am ñoo xamante ne dinañu daw sampo seen xel ñuy daw daw yu metti ngir ñëw naan ci dexu kawsar wu waaye bu ñu ñëwee bay waaja a jege si yàlla day bàyyi ay malaaka yu yore seeni karawaas ñuy gatanu nit ñooñu ñu di leen caw ñu di leen dóor ngir ñu bañ a yegsi si dexu kawsar woowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu daldi am jaaxle ne waaw lii lu mu doon ñu daldi ko xamal ne ko ñii ñooy xeet yoo xamante ne lépp li nga tiraloon ci doxalinu diine bi dañoo ñëw salfaañe ko wulbati ko soppi ko andi fa leneen lu bokkul ak sa doxalin moone ne xanaa looloo tax yenentu bi nee na man ahdata fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun ñu wax ñu war wax ne waaw li tax yenentu bi wax ko bi maanaam mooy yonent bi daf ne képp ko wax ci suñu mbir bi loo xamante ne waxuñu ko ci te nekku ci loolu nga ci juux loolu nga ci dugal te bokku ci loolu dañ la koy delloo dañ kaa seppi foofu ba mu set wecc dañ koy seppi ci diine bi delloo la ko ndax loolu kenn xamul fu mu jóge du yàlla la ko jox pour nga andi ko du yonent bi du yonent jàngale woon bàyyi ko fi kon loolu min ayna laka haada li nga andi ci diine bi foo ko jëlee kon tontu bi bu nekkul ci alquran nekkul ci sunna kon tontu boobu leneen lay doon nit ñooñu nag ñuy installé ci diine bi yu bokkut ci diine bi ñooñu ñooy daw ñoo ne yee yaay dañuy bëgg naan ci kawsar woowu malaayka yi daal di leen kattanu ci beneen contexte bi yonent bi sallallahu alayhi nee na man amila amalan laysa amrana man amila amalan laysa amruna haada fa huwa raddun képp ku jëf-jëf ji nga xamante ne digle wuñu ko ci suñu mbiru diine wii jëf jooju nu mu rafet-rafet nu mu taar taaru taaru dañ la koy delloo kon doy na kenn ku nekk lay wax ci diine bi na dëppog la alquran saxal te yonentu bi jàngale ko sallallahu alayhi wa waaye doy na rekk ci lépp lu waaye di jëkkati kàddu wala mu di ko jëf xeetu jëf na dëppoog la alquran saxal te yonentu bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam ba tax na nattu woowu yàlla teg yonentu bi buur yàlla tabaraka wa taala di wax ak yonentu bi ci suratul anbiya ci aaya 35 mu ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون buur yàlla tabaaraka wa taala ne yonentu bi ne wala nabluwannakum bi charri wal xayr fitna dinaa leen essayer yàgg say xeet dinaa leen teste yàgg say xeet wala nabluwannakum bi charri wal xayr fitnatan wa ilayna turjaun yàlla ne yonentu bi ne dinaa essayer examiner leen tajarrub def leen imtihaan ibtila ma xool ba xam ana kan mooy am résultat bu baax épreuve la ñu yàlla bëgg a tegal ni mu ne ñu dinaa leen tester ci lu metti ak yiw ma def ñaar ñu ñu doon fitna la di taxaw ni soccet la leen di taxaw ni soccet fu ngeen tourné ànd ak moom lu ngeen nekke nekk ak moom mun naa nekk fitan fitna psychologique mun naa nekk fitnay euh, wéredi mun naa nekk fitnay alal mun naa nekk fitnay soxna wala fitnay doom mu metti lool waaye yàlla nee na dinaa leen essayer ci beneen fitna bi nga xamante ni yiw la ma xool ba xam dingeen ngeen ñàkk faale xéewalu yàlla waaw ma teg la fitna ci lu mitti ma xool ni ngay doxale ba dee xam nga ne yàllaa fi nekk moo la ko teg moo ko nar a teggi kon yow yàlla xam na sa résultat ba note la la war a jox waa yàlla nee na dinaa leen teg fitna tamit ci xéwal ci yiw loo soxla am ko loo bëgg nekkee ko waaw nga yore ndombul tànk yoo xamante ne amul dara lay dox sa digganteeg say soxla wala sa digganteeg say bëgg-bëgg waaw masalan yàlla jox la doom nga bëgg doom bi lool doom bi nekk sa fitna yàlla di la seetaan rek danga koy bàyyi sagoom wala da nga koy bàyyee nasaraan bi mu jël ko jàngal ko nasaaraan ba mu doon nasaara wala da nga koy bàyyee mbedd bi juif bi ñëw jël ko def ko al yahud wala da nga koy bàyyee jàmmkatu xërëm yi muy dem si gisaanekat yi buxaabakat yi loolu mu doon premier occupation wala da nga koy ci daara alquran fa mu war a jàngee la koy xamal yàlla ak yonent bi ak alquran seetaan ndax bari nga fi ay morom yoo xamante ne ah ñu ngi góor-góorlu di def sabablu ngir am doom ay yàlla bindu seen dund ne dañu war a mën a meññ doom kon yow mi ko yàlla wërsëgal nga am ko yàlla jël cofeelu doom bi roof ko sa xol bu yàlla dalay seetaan ay toog seetaan la ba xam ana ci kan ngay jébbal xale boobu kooku mala tere nelaw gone googu la teree nelaw mu doon fitna ci yow ngir cofeel bu tar bank bëgg bëgguloo mu xiif yaa ngi koy dawal ngir mu lekk bëgguloo mu mar lépp loo xamante ne la mu war a jëfandikoo la yaa ngi ciy taxaw bëgguloo mu rafle lépp lu bees mais ànd ak kon yow xottu bi ngay occupé léegi intérieur xale bi ruux bi est-ce que loolu yaa ngi koy occupé bu fekkente ne jàngaluwuloo ko alquran jàngaluwuloo ko diine mooy defoo dara ci intérieur ruux bi defoo ci dara balaa ngay gëm ne ruux bi defoo ci dara keroog yow parent bi nga làqu nga dëddu nga faatu nga jóge fi bés ba nga faatoo la lay ci lay amee naxar waaw ñaareelu bés bi même chose sept jours moom balaa muy mat fàtte na la ndax lank nampatal ci loolu lay dem occupé waaw kañ loolu nag balaa muy dal kenn ci parents yi waxtu wi ñu nekk nii lañu war a jël suñu loxo doom yi yóbbu leen ci daara vacances ñu jàng alquran jàng doxalinu yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot aaya biñ leen jàngal nii yàlla di wax yonent bi ne wala nabluwannakum bi charri wal xayr fitna wa ilayna turjaun dinaa leen essayé xool jox leen lu métti mu doon fitna ci yéen ma xool na di dundee ak lu metti loolu waaye ba léegi dinaa essayer jox leen yiw ju ëpp lu doy yiw jooju mu def ko fitna xool leen na ngeen koy doxalee waaye nag li fi nekk mooy nangeen xam ne wa ilayna turjaun ci man yàlla ngeen di dellu ak fitna yamaleen teg in ñëpp ba tax na tafsiru Qurtubi boo demee xool page 17 numéro 25 ci aya ba nekk ci suuratul anbiya aaya 35 mooy aaya biñ leen jàngal nii qaala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhu daf ne nabtalikum bishiddatin wa raxaa wa saxatin wa saqam walxina walfaqir walxalaal walxaraam waltaa'a walmacaasi walhuda waddalaal nee na buur yàlla tabaraka wa taala nee na ibnu abbas mooy fiiri aaya bi si tafsir qurtubi ibnu abbas nee na aaya bi lu muy fiiri mooy nabtalikum buur yàlla da leen di ese nattu leen xool leen bil shiddatin ci lu jafe war ak lu mitti mu xool ana lan di taxawe ana nu ngeen di taxawe ci lu metti loolu ak ci naqari loolu wa sixatin wa saqam yàlla buur bi ba léegi dina leen ese ci wirgu yaram ak ci mettitu yaram feebar ak wérle mu joxla la wérgu yaram mu xool nang fooy exploité wérgu yaram boobu mu tegle feebar xool nooy exploité ba xam da ngay ci feebar boobu wal xani yi mën naa jékki-jékki xupp la alal ju jeex nga nekk ku womle wal faqr mun naa jékki-jékki nattu la nga doon ku ñàkk doo am dara loo joxoñ doo ci jot loo xelaat du ñëw loo bëgg doo si jot waaw mu xool nooy comporté wu wal xalaal waaw mun na la ese yombalal la fàgguteefu lépp loo xamante ne lu dagan la mu xool ba xam ca ngay nekk waaye nag mun na laa yombalal lépp lu xaraam ñëw teru tegu sa kanam nga di ko jëfandikoo te kenn du si xam ba xam danga koy sori walla danga ciy suubu waaw mun na laa yombal jaamu yàlla ba xam da nga siy nekk topp yàlla topp yonent bi topp ndigal yi ba xam da nga siy nekk comme mun na laa yombal tamit mboolem xëytu mooy yàlla yoo xamante ne mën nga kaa def te kenn du la ne ah yow yaay def lii kenn du la yedd ba xam da koy sore wala da koy def waaw mun na laa yombal tamit nga nekk ku jub yàlla won la yoon bu jub xool ba xam da nga siy tënk mun na laa won tamit yoonu cànkute xool ba xam da nga koy sore waaw kon aaya bi nii la ko ibnu abbas radiallahu anhu firi ci tafsiru qurtubi waaw buur yàlla ne dinaa leen essayer xool leen ba xam waaw teg leen nattu lu métti walla ma jox leen yiw ju bëri mu doon ñaari yëpp ñu doon fitna ñeel leen waaye xam leen ne ci man yàlla ngeen di dellu su ko defee loolu mooy la nga xamante ne mooy la aaya bi di firi waaye ndegem buur yàlla bu lay nattu ci sa doom waaw doom joo xamante ne danga kaa lool waaye ngal la nattu bi doy na rek nga bañ koo bàyyeeg boppam waaye nag la wóor wóor mooy jàppal loxo xale bi yóbbu ko ci internat bi mu dem jàng la nga xamante ne mooy alquran keroog boo fi jógee ko mu wala war a mën a taxawee ñaanal la yàlla mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin allahuma ya rabbi aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha wa anta xayru man zakkaha anta mawlaha allahuma aminna fi awtaanina waslih aimatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan amin ya rabbal alamin allahuma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha lii wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu